Touba ca kanam saa su ne muy wane yéene ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba rawatina ci barab bii nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké sumbal na ko Serigne Touba ci dëkk bu sell bi di Touba mu di université bu Touba. gannaaw ndigal li Serigne Mountakha joxe woon ci tàmbali bi ñu yëkkati téeméeri million jébbal ko sang bu tedd bi ngir tàmbalee ko liggéey bi ba noppi itam jël ci bâtiment boo xam ne def nañ ci lu jege juróom benni téeméeri million gannaaw bi loolu noppee itam ba Serigne bi joxe ndigal ngir ñu door njàng mi ñu xam ne nag am na jumtuwaay yu ci war ñu ne dañ koy ànd ak Serigne bi. sëñ Habibu mu sëñ Fallou dey tey jii la tàmbaliwaat yee salaat ak jaayante Touba ci kanam téeméeri million la indaale waa Touba ci kanam yee salaat ko seen taxawaay ngir wane ne lañ defoon fàtte nañ ko ñëw ngi tàmbali tàmbali bu yees ñun ñëpp kon dégg nañ junj bi kon jox kàddu gi sëñ Mouhamadou Bachir. moo tax ñu ngi sant bu baax waa tubaat ci kanam ci yitte xalaajo ji nga xam def nañ ko léegi ba joxe téeméeri million ngir gàttandoo ko sëñ bi ci loolu nga def na ko. yëkkati téeméeri million jébbal ko lu Mouhamadul Mountakha ngir mu tàmbali liggéey bi nga xamante ne bii Serigne Touba dong tax mu koy def ci biir dëkk bu sell bi di Touba sukkandikoo ko nag ci yéene ak bëgg-bëggu Serigne Touba ci mbind mi nga xamante ne bii Serigne Touba bind na ko batale ko mbooleem taalibe yi rawatina ak njabootam. lu li mel nag tax na Touba ca kanam fas yéene fetliwaat la xasaayam ànd ak sëriñ Mountakha ci lépp loo xamante ne bii liggéeyal Serigne Touba la rawatina lu mu sumb ci biir dëkk bu sell bi di Touba tuuba ca kanam laaj lu ñu mën def fu ñu xam. liggéey bi moom laal suuf nañ ko yëkkati bu doon lu moom laal suuf ilaaw kalimatillahi ulya loolu dong mooy liggéey bi loolu nag ci mën a jëm jëmul fenn ci mën a jëm kon nag jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë mbokki taalibe yi képp ku bëgg a barkeelu ci Touba ca kanam mën ngaa télécharger application Touba ca kanam bu bees bii ñu dajale ci nag mbooleem yoon yi nga xam ne mën nga cee jaar ngir yónnee xaalis ngeen di ko télécharger ci Play Store wala App Store.